président de la république ñun waxuñu la nga dépénaliser wala nga ñàkk a dépénaliser l'homosexualité réew mi du sama réew du samam réew réewu sénégalais yépp la dund nga lu ëpp fukki juróom fukki at dégguloo turu président de la république yàggatul dara tur woowu danañ ko nangu ci yow jox ko keneen maa ngi lay woo di woo sama bopp nañ rafetal suñ digganteeg suñu borom rafetal suñ digganteeg suñuy morom bu nu dara jaral ci àdduna ñuy yàqoo ak suñu xeet di yàqoo ak sunu borom ñun agenda lañuy ñuy xeex agenda boo xam ne yow xam nga ko agenda boo xam ne ci la GP GPA di dox ci la EPU di dox agenda boobu yow xam nga ko bu baax agenda boobu ñun moom la ñuy combattre dafa dépassé fi ngay waxee nga nekk fi danañ ko combattre nga folli ko danañ continuer di ko combattre combattre wuñ ko ngir sa dund dañ koy combattre ngir lan wéyal ndigalul borom bi tabaraka wa taala ak bëgg sunu askan ndax dañoo xam l'LGBT la muy jural askan ci ay xeeti toskare li ñu gisagum ci toskare rek doy na ñaari at yi yëpp ba ñett Covid beeg la ko jiitu woon ak Ebola lu ne ñu ngi koy gis xeeti musiba yooyu di dal ci askan yi te dara yóbbeewu leen ko lu dul ak mooy yàlla maa waqaa balaaun illaa bi danb fi rufia illaa bi tawba balaa saa yu wàccee ci xeet bakkaar yu bëree ko waral ñun xeexu xeexuñu LGBT rek yem ci président ñun ab agenda la ñuy xeex gis nga lii nuy tuddee sax njaaloo gi ñu daganal ci réew mi dafa bokk ci sunu biir combat laïcité bii nga xam ne tey mooy promouvoir lépp loo xam ne ak mooy yàlla la di ko fat di ko jaboote dafa bokk ci sunu biir combat république bi nga xam ne yow moom nga gëm dafa bokk ci sunu biir combat ñun yàlla la ñu gëm lislaam la ñu gëm amuñu benn valeur bu ñuy défendre bu dul bu bàyyi ko ci borom asamaan ak suuf xamuñu itam ñuy tuddee seen bopp nouvel ordre mondial wala gouvernance mondial bi nga xam ne yow moom nga xam moom nga gëm ci ngay ci ngay ci ngay dox ci ngay wax. Euh, sunu mbokki borom xam-xam yii nag maa ngi leen di woo sëñ Moustapha Guèye maa ngi lay woo yàgg groupe boobu da leen ñun seen i mbokk lañu pare nañ pour rencontrer leen yéen ndax fi nuy waxee xam ngeen ko ni ngeen dégloo président ngeen dégloo ñu ko.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 ne leen am na loo xam ne bëggaluñ leen ko xeet bi yeewu nañ de ma tee ngeen a essayé ñun ñu exposé leen li ñuy xeex bu keroogee yee ngeen xam li ñuy xeex lan la